jërëjëf mbokk yi seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte ba tey ñu ngi Kaolack drapeau chef de l'État tey nag ñu ngi ci tournoi bi nga xamante ni mooy compétition individuelle bi démb gis ngeen équipe yi nga xamante ni wane nañ seen bopp ci wàllu sef de nga xamante ni boo tuddee Fatick du dellu ginnaaw ci drapeau chef de boo tuddee Diourbel du ñu dellu ginnaaw ci drapeau chef de boo tuddee Kaolack wala Thiès du ñu dellu ginnaaw ci li nga xamante ne mooy drapeau chef de l'État waaye équipe bii di Thiès ak euh, Diourbel ak Diourbel ñoo jëm final mbokk yi tey nag individuel bi ñu indi équipe bi ku ci nekk tey mën naa ne mbër mi da ngay sa bopp. parce que compétition par équipe jeex na kon ñu ngi ci individuel bi dañuy xool individuel bi mbër yi yan décision lañ jël lan lañ fas yéene def su ko defee ñu tëgtal leen mbër yi benn par benn dañuy jubali ci Boy Faye dem ci général Malika dem ci ñoom ñi nga xamante ne ay champion lañu ñu ngi ci compétition bi su ko defee ñu tëgtal leen benn par benn Adama Baye Diiré kaay leen ñu dugg ci biir xool kaay. Sélé. waaw bëggee na yaar na xam nga lépp jaam waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax. compétition bi tey ñu def par individuel. Euh, compétition bi mooy sa ñaata compétition Sélé di ñëw drapeau chef de l'état. yaa yàgg na nag depuis 2013 ba léegi maa ngi koy bëre quoi en Thiès waaw fa la njëkk a amee fa laa ko njëkk a bëree waa Kolox ñoo ma Euh, tey jii tamit deux mille vingt et deux mille bi tamit ñoom ñoo ma indi quoi. waa waa kii nii euh, waa waa Kaolack yi. waaw Kaolack laa njëkk a représenté drapeau chef de l'État waaw deux mille euh, deux mille treize waaw. yan dëkk yan dëkk nga mos a représenté drapeau. non ñaari dëkk rek laa mos a def Thiès ak Kaolack. Thiès ak Kaolack waaw. démb nga perte. def individuel. lan la lan mooy seen différence ñoom ñaar. waaw lamb la rek xam nga lamb daa wuyoo turam. waaw dañuy lamb daj. suba nga làmb doo daj quoi waaw yàlla moo may moo leen may ndam ñun ñu perte dañ koy sant yàlla parce que individuel mu ngi fi di ñaan yàlla ñu jël ko quoi waaw. individuel ak ak ak mooy seen différence ñoom ñaar. waaw individuel xam nga équipe moom trois cinq personnes la waaw cinq yi trois bu daanee rek mooy gañ ngeen mais individuel c'est personnel pour yow kese la suñ la daanee tamit mooy ñàkk nga mais bu dee bu dee par équipe ñaar ñi suñ leen daanee ñett ñett ñee ñëw daan rek gañ ngeen. waaw individuel bi ñaata combat ngay mën nga bëre ay 4 combat wala 3 sans départ parce que man bokk ma préliminaire kon damay ñëw bëre quart de finale demi finale finale waaw bu dee da nga bëre préliminaire nag mën nga bëre 4 combat. jërëjëf ci leeral boobu merci beaucoup jaajëf merci. jaajëfati président Maysa kaay luy naa la. mais sant naa leen bu baax a baax sa xoo baax la de sa équipe dem na final. non tey aw ma xoo tey tey sama dëkk dem na final. mais sama équipe moom vraiment c'est le Sénégal. Ah. mais sama région nag. Ah. vraiment dem na final. léegi sa région bi mu demee final ban yëg-yëg nga am. alhamdulilah mbégte rek euh, mais li si gënoon a am solo ah, mooy ñu tàmbali championnat bi dans de bonnes conditions. et alhamdulilah yàlla dimbali nañu ba tàmbali nañ ko dans d'excellentes conditions di ñaan yàlla mu yegg si jàmm euh, yàlla def jàmm vraiment ne nii mu jeexe ko noonu euh, que la meilleure équipe daal muy Thiès wala Diourbel que la meilleure équipe génn suba incha allah. Basirou dafa maa yóbbante ci yow dafa defal wax Mbaye sa Ndiaye nee président incha rabbi Diourbel laam te du ma ko bay dara. ah waaw nee ko Diourbel région de Thiès la am. bu soobee yàlla. Euh, Thiès ak Diourbel on verra la meilleure équipe. incha allah jërëjëf kon waxal ma loolu tamit yóbbanteel ma ko loolu. jërëjëf incha allah jërëjëf jërëjëf je vous en prie. jërëjëf siyaar naa la. doolu siyaar. Euh, gis nga ni ñu def par compétition équipe. tey yéen ngi ci individuel bi. bi mooy sa ñaata yoon ngay ñëw compétition drapeau chef de l'État. bi mooy deux fois. yan dëkk ñoo lay Fatick saa yi ma ñëwee Fatick laay représenté représenté gu ma feneen Fatick mm. waaw Fatick moom neex la woo waaw neex la wuñ mais ànd. waaw tey individuel. tey mooy làmb ji. mu nekk tàmbali làmb ji. Ah. xam nga làmb day toll xam ne bu ci bi ñàqee rek yow day mel ni bokkatoo mais tey individuel la ku nekk tey ngay wane sa bopp waaw. damaa gis sa waa ji nga àndal saako bu dajoo booy fay da ko mbër am ko problème. la non loolu moom xam nga rek des fois mënul ñàkk ci làmb mais ñun ñëpp xamante nañ barki yeneen bi dina leer léegi léegi fii tey waaw tey dina yëngu. waaw démb bi ngay bëreeg Boy Faye sa équipe perte moo tax nga euh, découragé wala da nga doon sax ñëw tëdd dem ko ndax moment boobu mënatuma woon taxaw ndax équipe dafa fort te esprit groupe dafa xaw a garaaw ñu am nu ñu yabee kon bu ñëwee mu am nu mu demee rek après yow da lay jàpp quoi. mais nag boo demee ba ñibbi après day comprendre mais nag sëñ Fallou. ñu bari nee nañu général mënoon na sauver l'honneur. waaw mais xam nga rek ma sëñ Fallou donte sax mënoon noon nekk mais nekk ma fi woon démb boo bëggee dégg-dégg quoi bu dëgg dee dëgg rek nekk ma fi woon mais nag sant yàlla bu baax. maa ngi fi bu baax. kon dinañ xam ba xam ba général mu ngi fi. mu ngi fi woon léegi-léegi ngeen koy xam léegi ngeen di xam ndax. Malika kaay. fils de Batlen. Kebe. siyaar naa la. delloo naa siyaar. maa yaa am jàmm. sant naa la baax alhamdulilah. bi mooy ñaata yoon ngay ñëw drapeau chef de l'État. bi mooy trois fois. trois fois. Mhm. yan dëkk nga àndal. ren. yan dëkk nga ci mës a àndal. mës naa ànd ak Louga ànd naa ak Tamba ren maa ngi ànd ak waa Kaffrine quoi. lu tax loolu. Louga Tamba. noo dara lam la rek fu la jubloo rek incha allah. Ah. ngeen ngeen ngeen perte par équipe. dem individuel. diggante équipe bi ak individuel lan mooy seen différence yéen. non amul différence lép bëre ko quoi. waaw lépp bëre la ñi fi ñoom ngay bëreel fee rek. Mhm. équipe bi da ngeen a perte. waaw perte nañ ke démb waaw. Mhm. individuel bi nag tey dafa mel ni ku ci nekk day war a wane boppam. waa gis nga noonu la demee. waaw ñu ñaan yàlla may ñu ndam rek incha allah. Mhm. ay ca mbër sa naka mu naaj siyaar naa la sant rek yaa ngi la Malem Niani Malem Niani numéro un numéro deux wala numéro trois numéro dë waaw démb nga bëree compétition par équipe gis nga li ci jot a xew euh, tey ngeen dem individuel démb lan nga yëg ci compétition waaw démb dama am dama am loo métti man mënu ma daan tooni ba pare waa Dakar def lu leen neex xam nga fii moom ku fi am doole rek yow la ñu jàppale bilaay walaay doole nga ko lam dafa metti doole laa ko tuddee parce que dama kontaan sama yére ma ñëw taxaw ñu ne ma daan wut nee na damaa damaa dama damaa laal ngeem li laal ngeem kay ci bëri la bokk mais damaa jàpp damaa teg sama loxo ci kaw xam nga nit ki mënoo ko mënoo mënoo ko ndama te tegoo sa loxo ci kaw ngeem li loolu mënut a nekk. kon gars yi dañu jaawale teg loxo ak jàpp ngeem lool ngeem loolu lan jaawale xam li ma la wax loolu noonu la demee nag man loolu rek moom it affaire ci affaire bi instant yii nii. bilaay walaay dem ngeen individuel actuellement lan nan ngeen koy waajee ak nu muy demee. waaw ñu ngi waaj waaj bu am rek waaw fas yéene koo jël nag comme que bu mag bi rëcc na ñu kal ko si bu ndaw bi rek waaw nan yàlla may ñu jël ñu jël ko nag amin mbër nuyu naa la. waaw doole ziar Baye. waaw yaa ngi am jàmm. waa bii mooy ñaata yoon Libido di ñëw drapeau chef de l'état. man bii mooy sama sama cinquième fois. cinquième fois. waaw yan dëkk nga ci àndal. Rosoto Thiès. Thiès waaw Thiès nga mos a moom laa mos a àndal waaw. ngeen compétir ba dem li nga xamante ne mooy final. ñu leen di félicité bu baax a baax lan nga ci jàngee ci compétition waaw compétition bi sant yàlla rek xëy yàlla ànd a ñun Fatick mënoon na ko jël Dakar mën na taxaw final hmm. te ñoom ñëpp ku nga ko hmm. wante bu fekkee ñun ak Diourbel Diourbel gëj ñaaw final a final waat kon nag togg yi ñaan yàlla comme que ñoo bëggante final yàlla may ñu jam daal démb dafa am loo xamante dox na ci sa diggante ak Dakar bi ngeen laalee ba pare am na coow yu ci jot a judd coow yooyu mun nga ñu leeralal nan la demee ak en tant que capitaine ban gis-gis nga ci am waaw coow demewul neen loolu maanaam benn ah, man ak Zambala bi ñu dajee arène nationale. Hmm. bu bëree ba pare. Hmm. n'est-ce pas lamb jooju yaa doon nga ko rapporté. Hmm. ba nga naa li mu doon nee na tàllal na sambalaa cinq. cinq yooyu nag la mer quoi ni man damay wër ma daan la commencé di ma saaga ak di ma bëmbax. noonu la fay demee. wante nag coow lépp wax dëgg yàlla bu yàlla dëgg wax rek Zambala moo profité coow li moo ko parce xëpp na ma sunguf trois fois. man nag bi mu ko defee coow ma def ma dara demaat naa sama ci bugaay xëppoo dox ñëwaat dem si géew comme que damay daan ba damay daan bu demee géew bi man damaa daan mën naa ko daan lamb la rek ni ma koy ni ko ni ko daane noonu la ma mën a daane parce que daanaa la champion la te nag xam ne ñun ñëpp ñoo bokk wenn xeet buñ boolootul non war noo mën a coow wa war naa mën a coow ku ne moom des sambala sambala war na mën a coow ku ne moom des libidoor ndax ñoo bokk benn mi défendre moom lay défendre kon lan la lu fi jaar a ngar yi bu ko méttee maa ngi jégalu maa ngi koy Alioune Badara Diop ngi koy bu baax parce que ni sama rak aada ndondoo bi nga dal bëgguma ko woon yéene moo ko tey mu ngi ne ñëwul compétition kon loolu gënalu ma te pourtant moo nay calculé wane boppam kon tey ndog-ndog boobu maa ngi koy masaw bu baax di nga ñaanal jàmm yàlla bu ko dara dal di bëggee waa Dakar yi di leen baalu àq parce que coow la ne sama maa leen jégalu bu baax a baax baa lii nag tegal ma ko bu baax a baax a baax. Zambala xam na ni Libidor jégalu nga ko wax nga ko. waaw maa ngi koy jégalu ndax parce que sama dara xaju si parce que sëñ Bamba. gisee ngeen yéen ñaar tey. non waaw ndax xaw ma nu mu ñëwee quoi moo tax waaw li ma war xanaa bu ko déggee dina ma jégal daal dinaa dem ci moom gars yi Adama lii moom faw ñu def ko mu ne li xew démb neexu ko mu ne am na lu ko metti trop parce que yow nit ku baax nga di ngeen a bëre arène nationale mu am nu mu demee nee na bi nga dajeeg moom am na loo wax mais day xam ne loolu deretu mbër la mais nee na bu dee def na la lenn loo xamante ni metti na la moom mu ngi jéggalu nee na li xew Adama Baol metti na ko trop jàppalu ma ko dara parce que ñun ñëpp fii ñoo bokk nday ñoo bokk baay comprendre nga yaa nga waxal sa bopp démb nga may door a gis ma histoire làmb comprendre nga démb nga a gis ma histoire làmb li muy door bu dul dara sax ma moom ay mbokk lañ lébu la may lébu comprendre nga làmb dafa baaxawul yenn yi comprendre nga li muy door bëri nañ cinq fois génn na ma quatre fois par point daan ma benn yoon comprendre nga man loolu ma nga defoon mbër man mbëri daan naa leen fi pili ay ay sept ay huit masumaa tàllal mbër masul am li muy door la daan génn ma quatre fois par point tàllal ma six arène nationale ma xam ne affaire mbër la maa ñëw jour boobu maa dem ba ci moom daf ma daan wan ma ginnaaw maa dem ba ci moom félicité ko wan ko ginnaaw dem comprendre nga waruñu maa dóor 4-0 ba pare mu ñëw ba samay cumukaay. offense bi jéggoonoo nee na loolu métti. jàppal ma ko dara adduna amul solo. mais li ma gën a naxari nan ma gën a kon dina ñëw ci yow. baal yàlla xam na ne li ma gën a naxari mooy aada bawal dafa feeñ si ñun. xoolal encadrement bi ñun ñëpp dafa feeñ si ñun billaahi te te te dafa am loo xamante ni bëgguma ko woon a wax sax mais suñu délégation bi suñu délégation Dakar bi wallaahi wallaahi wa taalaahi kenn jàppale ñu boo bëggee dégg-dégg rek dagaar amuñu sax xaalis bu ñu préparé woo kenn jàppale ñu toll ni région de Dakar ah capitale capitale du senegal Dakar ñu seetaan ñu ñun booy ñu non am na loo xamante ni billaahi bëgguma see yegg. mais équipe bi amul kenn ku si teg loxo amul kenn benn autorité tegu si loxo lu toll ni dakaar ah ay maire de la ville de Dakar maire la ville de Pikine maire de la ville de Guédiawaye ah di xëccoo Dakar ñoom ñëpp mënuñoo sax teg ñun ay doomu jàmbur lañ am na si yu bari yoo xamante ni billaahi wallaahi bëgguma see sax jaar mais sant nañ yàlla parce que ay góor lañ yàgg nañoo génn di campagne xam nga di wàlliyaan di daj lu nekk liiru dara. day jeex waaw mais lii gënoon nice mooy ñu taxaw équipe bi parce que ñun Dakar couleur Dakar lañ lañ sol moom la ñuy représenté waaw kon képp kuy Dakar waa da nga war a jàpp si équipe bi. loolu mooy yoon jaajëf jaajëf ndeysaan waaw sa waay jëlante nañ tànk ñu xool tànk boobu la ko ne ndeysaan di ba koor moytul waaw waaw jël am na di ba koor daan na ko ndeysaan ba dem ci biir ndeysaan dem bërit koor la oh waaw waaw Ngor ñaax jël na tànk ba daan na ko ndeysaan Ngor ñaax daan na ko ba jéggi ko ndeysaan waaw waaw oh Wos Jordan daanu na supporteru Ngor ñaax yi Ngor ñaax ay borom fii ndeysaan nee na bopp bee baan waaw waaw ndeysaan waaw waaw on ngi bëre ci kaw booy bi ndeysaan Serigne Ibrahima Jonn waaye ay naataango la Fils de Mbar nee na sama poids moo ëpp ndeysaan waaye nuyul ma Petit Lo waaye fàttewu ma bàcc seen waaw waaw fàttewu ma Mor le jox ndeysaan la jox ca law law Sangot di ko jaare Ibrahima Ndong ndeysaan waaw waaw ehe eh. moom ngi def ambiance ndeysaan moo faye mbooj instant bi waaw waaw booy ba jël na ko oh ñu xool ceinture bulo El Hadj Ndiaye bu Kaolack daan na booy Kédougou bi ndeysaan waaw waaw El Hadj Ndiaye nañ ko xool nee na ngóor ñaa waaw waaw diggante Kaolack ak Kandiaye sorewul ngóor nee na ko ponkal jaaxaluma ndeysaan ñu ñëwaat si 66 kilo bi. ñëwaat si 66 kilo bi Serigne Ibrahima Dakar ceinture bleu waaw onge daan na ko plaqué na ko onge onge en demi-finale ndeysaan bu am action rek action rek action fu mu nekk rek action ne fonction bi safee maa ngi ñaar yëpp waaw waaw ndeysaan ñaari combat yi dafa noonu noonu ndeysaan waaw waaw bëgg naa ndey njoor xuja nduur ndeysaan na bu combi bëgg naa leen waaw waaw ñaari combat yi daan na ko jël bu gaaw daan na Arona Diop waaw waaw daka mo ah Arona Diop ak rajaxe la rajaxe rayaxe rayaxe ndeysaan waaw waaw rayaxe jël na daan na ko ndeysaan jël ba na rayaxe rajaxe na ko rajaxe tey de rajaxe gaay gàncax faama ak ki nga ne mooy malam ñaani numéro 2 du yomb l'enfant série de ndeysaan yëggal wàcci gis naa fi sànq Pape Lolo ndeysaan ñëw na nee na ma waa kenn desu fa ndeysaan waaw waaye mbarum daa ànd ak waar ki rasulillahi déggal Basiru yaa fi ne waay yooyu ah. ndeysaan 100 pour cent njom 100 pour cent lit nga xam ni mooy bëre ci waaw waaw ndeysaan njom fu afee la ndeysaan njom fa pelalum waaw waaw jigéen di dina jegin wala dina roog a ñaamo rek ndeysaan neex waaw waaw laa ilaaha illallah Sélé ak Thiatou Aïda ñu ngi bëree waaw waaw ay Aïda dem na Sélé ni tekk waaw waaw Thiatou Aïda ngay demaat Thiatou Aïda daa bëgg a jël tànk bi Sélé gis ko lii la ndeysaan ba jàmm nee naa la su may reporté taxaw damay feebar na woy yëngu maa la wax loolu faye mbuuj faye mbuuj na yëngal wala Agnès waaw waaw oh Thiatou Aïda lii lan bi sifflé lu xew dañoo mi-temps waaw waaw ñu xaar ñu ñëwaat waaye arbitre soufflé waat na ndeysaan bibi ndeysaan ak Thiatou Aïda l'enfant chéri Zawal fils de Badou Ndiaye rakk si Abim Ndiaye rakk si Zal Ndiaye Sangomar mi ngi baral mi ngi maa la wax loolu ñu Aïda mi ngi baral léewtoo bi koy baral dari diggante booy xool o oh, gàncax faama defatina maninam ay waay waay waay waay la faasari da betanti lii lan da ba jàmm maa la wax loolu jël bu gaaw te rëy la ko daan maa la wax loolu jëlal fan si garab bi jëlal fan si garab bi waaw waaw waaw malam ñaari daw na avertissement Sélémélé waaw Sélémélé am na avertissement cey loolu ay waay Thiès Kaolack a waay dem na dem na ñu xool Caatu Ayda ak Sélémélé. Caatu Ayda Sélémélé ña nga ca biir. ndeysaan day neex. Sélémélé lañ avertir. waaw waaw wante dafa mel ni Caatu Ayda moom moo gën a bëgg combat bi ndax mi ngi accéléré. waaw da ngay gën a bëgg ndax boo xoolee moo remplacé Sélémélé fi nga xam ne mooy Thiès. ah kon looloo tax mu bëgg a wane boppam. ndeysaan te c'est la première fois mu ñëw drapeau chef de l'état. ah ndeysaan daa bëgg a wane boppam attention. ndeysaan Sélémélé jël na loxo ba ñu xool. waaw waaw Sélémélé jël na tànk ba waaw waaw rasu na ba jeex. oh xale bi daa mel daa jël na ko moom tamit Eh, ñaari xale yi li ñuy def am na solo. Caatu Ayda moo gën a bëgg combat bi ah. waaw waaw Caatu Ayda moo gën a moo gën a féete xale tamit. waaw loolu tamit moo gën a féete xale booy xool Sélé mene du mag. waaw jël na tànk ba jël na tànk ba da koy xar wala Sélé bañ na ndeysaan. attention xaw ma nu muy mujjee. Ah, waaye du ah, yomb ah, waaw waaw du yomb mot ba eh, mot ba. ñu ngi bëri la la tegal sees day am. wala mboot bay continuer waaw waaw jolal ya ah. jolal ya suuf ah, eh ah, eh eh waaw waaw caatu caatu ayda na caatu ayda am na trois api Séléméré daan na ko ndeysaan Séléméré daan na ko expérience face à la jeunesse moo ko jiitu si drapeau chef de l'État te na ko Kaolack yëngu na ndeysaan jël ba public bi waaw diggante fi ak Xotaan soriwul ta Sélé Méré ba si Njaafat ñëpp a ngi yëngu ndeysaan ah, oh père gañ ci suma ko waaye fa mu toog mu ngay yëngu ndeysaan maa la wax loolu ah, waaye démérité wul. waaw démérité wul ndaanaan la. non bëre na bëre bi bëre na bëre bi. booy xool action yëpp sax moo ko def. ndeysaan. wante l' ni nga koy waxee. waaw waaw face ku la si nekk bu leen dem. wala li nga toogee moo la ci wàllu we maa wax loolu Touba dina yëngu. waaw waaw Buur Saalum. eh eh jëlal ma loolu Buur Saalum. waaw waaw Touba jaaxle mbokk yi. Toubacouta maa ngi di fay. olof a ko wax nee na lu juddoo ci tànk bu naawul loolu wér olof la tey ban am kontaan rek. xam nga parce que chef de l'état su amee gisuñu Toubacouta rek nañ xam ne dañoo jël mbër yu leen neex mais bu fekkoon ñëw rek bindu dinaa si bokk dinaa wane sama bopp ndax fii sama réew la Saalum man maay borom voilà. nga dëkk Saloum drapeau chef de l'État mhm. ci mbër yi lan moo waral loolu. waaw loolu mooy li ma la wax rek dañoo tànn mbër yu leen neex rek mais ñiñ tànn yàlla nañ fi jëlee seen wërsëg xam nga maa ngi maa ngi sant yàlla daal suba lay dàq suba dinaa ñëw ak beneen méthode. Uh-huh. incha allahu rabbi mais mais est ce que loolu du fudd waa Kaolack kaw Kaolack. Mhm. bokkoon na ci compétition bi lan moo tax bokkuloo ci. waaw mais ñoom ñoo xool mbër yu leen mbër yu ñu wóolu ñu jël leen mais nañ xam ne rek Touba ko dafa nekkoon tey la fa gën a ne. voilà fa ma nekkoon tey laa fa gën a nekk lépp. dafa mel ni Kaolack yaa nga dugg see ci biir stade bi da nga yëngal. déggoo ñu ni buuru Saalum fii Saalum la te man maay buur bi su ma yëngoo war nañoo yëngu billaay wallaay. kon ñu xaar suba ci ci. dinaa fi def doom incha allah. incha allah rabbi mooy général Malika Fatick moom ngeen jàkkaar lool ngemb rouge ak bleu bleu mooy euh, général Malika rouge mooy Zambala général sol na ko da jaay doole da ko bëgg a bañ na defal ndànk général dina la mbot defal ndànk fàqat na ko surxol na ko Zambala bañ na général dina ko daan wër na ko ndomba général wër na ndomba Zambala wër na ndomba daan na ko doon wax ci baa ngi noonu général li mu doon wax ci compétition baa noonu ndaysaan gis nga découragé nañu ñoom équipe dakaar bi ndaysaan mi noonu ndaysaan ordinateur ak kan ndaysaan ordinateur fàq na ko daan na ordinateur daan ndaysaan daan na dee na ko li mooy sport. yaakaar ngembo ngemb lu ñuul li jàkkaarloo ñam def sengoor bu xonk bleu ak rouge ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi noonu rouge ndeysaan xaaral ma jox laa lion mu dem moo def li nga xam mooy ceinture bleu jàppante nañ nañ ay loxo ndeysaan ñu ngi damante waaw sa bopp waaw waaw si moo jël na tànk ba takk na ko fay day mbot wala laa ilaaha illallaah booy bi takk na. moo takk bi mu ko takk ya sori na. sori na de doomu ñu. yegg na ko fu sori. yegg na ko fu sori kal bi waaw waaw moytul tukkal bi laa ilaaha illallaah ñu xool ñoom ñaar. waaw waaw trois appuis. attention trois appuis. arbitre sifflé na waaw. Badou Boy daa daanu. Bleu moo daan waaw waaw Boy Faye def na trois appuis. def na trois appuis. Boy Faye def na trois appuis. dëgg la def na trois appuis moom booy fay Ndeysaan Ndeysaan Ngor Ñaax ak. ak El Hadj Ndiaye. El Hadj eh, oh jël na ko daan na ko. daan na wala daan na ko. ay daan na ko. waa puis am na Ngor Ñaax daan na ko. Ngor Ñaax nee na sama ginnaaw du laal suuf. Ndeysaan. Ngor Kaffrine ak Kédougou ndeysaan mhm. ndeysaan ñu ngi noonu Kaffrine ak Kédougou ndaysaan rouge mooy Mamadou Moustapha Sall ñu gën ko xam ci fils de Batlen Siki mu ngi noonu moo ngemboo ngembu Lagos bi Kaffrine ak Kédougou ndaysaan Kédougou mooy bleu Kédougou mooy Bleu ndeysaan ñu ngi noonu moom jàpp na ko jàpp na ko da koy daan daan na ko daan na ko mu na ko Mamadou daan na ndeysaan daan na fii 86 kilos yi la waaw soox la ak dooni junior Dakar Kaolack ñu ngi noonu ci compétition yi Dakar ak Kaolack Tony Junior ñàkk na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 ah waaw loolu day saf day neex ndeysaan. faama ak Dibagor sañ plaqué na ko Dibagor fi mu jàpp baax na dina ko daanam déet gàncax faama bañ na Dibagor jël na ko gàncax faama bañ na Libidor mu koy wiic koy wiic mbot ñoom ñaar da daan wala déet daanu ko jàpp na trois appuis daan na ko Dibagor gaañ na ko daan na faama. Dibador daan na Gandia Fama waaw waaw ndeysaan ko ko waaw waaw ndeysaan Dibador ak Gandia Fama ñu koy tàcc di katagal di ko wan ni ñu ngeeg yow tamit dinañ laale war ci final ñoom ñaar dina du yomb waaw waaw dina final bi la ak Kaolack dana neex bi 86 yi Thiès la ak Kaolack dana neex waaw finalu 86. ba mu koy jéem oh, oh, oh. daan na ko. Aline Mbengue daan na ko ndeysaan. waaw waaw waa Saint-Louis ndeysaan. ñu ngay zibilé. kilo. ndeysaan dox ci diggante Sele Mele. ndeysaan ak Rajaxe. Sele Mele daw na jëli ko Radiakhé jëli na ko njool bi dokoy koy daan da koy daan fi la yegg sori na da koy daan da daan dina ko daan dina ko daan da daan Radiakhé dina ko daan Radiakhé dina ko daan dina ko daan ndeysaan da koy daan ndeysaan Radiakhé daan na Sele demi-finale poids plus de cent vingt kilos Simon ak général Malika Simon moo leen woon ginnaaw ngembo ngemb lu ñuul li ak général Malika ndeysaan waaw waaw ndeysaan ndeysaan noonu ñoom ñaar général daw na fëgg ko ndeysaan ndeysaan Simon ak Ibrahima ak ak général Malika ñoom ñaar ñu ngi ci compétition bi. Simon ak général Malika. Simon moo ngemboo ngemb lu ñuul li ceinture bleu. général Malika ngemb lu weex li ceinture rouge. général jëli na ko sol na sol na da koy biij yëg na boppam. Ndeysaan da koy biij da koy biij moom général daan na ko. mooy daan naan mooy daan naan yóbbu góos. ba mu dem mu indi ko droite ndeysaan général dem na final dem na par individuel dem na final moom général Malika ndeysaan la mu waxoon def na ko. bëre waa dakaar ñëw di ma soutenir Malika yëmbal benn baraak Kër Massar buun waa Caaray gaa yëpp dañoo ñëw taxu ba dëgër di ma dooleel ne woon naa la mooy làmb ji yàlla nañ suñu borom suturaal dafa am lu ma jaaxal uh-huh. mooy général Malika démb boo fa ñëw ci compétition par équipe bi fi mu teg ci mikaayam ak fi mu ko teg dafa ute lan la tegtal la wala lan. waaw lépp tegtal la rek làmb moom saabo booy chaque jour ñu lay tegtal te lu la lay tegtal rek loolu ngay def. waaw démb. ci lan nga fanaan parce que gis nañ yeneen cimmikaay yu bees yoo xamante ni gisuñu ko woon ci général. fanaanuñ ci dara waajal comme ni ñu doon waajalee rek xam nga bisu am du bisu ñàkk bisu ñàkk tamit du bisu am suñ borom mooy dogal ci côté bépp mën naa ñëw fii du ma indi benn budeel jël làmb. mun naa ñëw indi ay butéel te du ma jël dara ñun liñ jiital ci làmb mooy entraîné ba am doole suñuy waajur ñaanal ñu ñu ñëw loolu lañ gëm waaw le reste yëpp day mottali la ñu ngi lay gis ci lutte traditionnelle bi ngay ñëw drapeau chef de l'état ñu gis ci général Malika te yaa ngi waajal combat bu rëy sa diggante ak fils de Balla ci wàllu bëre door le treize li ma bëgg mooy contact ba bañ na suba la combat bi ma dem bëre ko pour wax la ni ñun chaque jour dañuy dund làmb combat arène beeg mbapat bi lañ yemale léegi pour man sax arène bi pour sumay supporters yi nga xam ne ñoo may bëggee ma dëkk koñ ba ñuy may tiitaroo ñoom la pour combat a bëre bi dama bëri sama combat dañoo jàpp ni kon sa adversaire wala da nga koy man mbër laa moom mbër la mu ngi waajal ko waree man it suma bopp man lii laay waajalee am déet waaw noonu la demee loolu ngay waaj bi suba di ñaan yàlla suñu suturaal ma defal ma ko comme daaw ni ma ko jëlee woon ma jëlaat ko. waaw ndax ñun moom ay jaam yu xeebu lañ te duñ jug di sabablu sabablu nag weesuwul tàllal say loxo suñu borom ñaan ko li nga war a def yow nga def ko yàlla nag moo yor ndam suñu mayee dañ koy sant bu ñu xëyee dañ koy sant ñu ngi naan yàlla ñu yàlla may ndam. bonne chance général merci waaw. Seyer Dama mi xale la te day dem. waaye ordinateur tamit mag mu am ñam la mu jugee ba ñaaxar dëkk Fatick région de Fatick la teewal maa la wax loolu Madou jaajëf day neex naa la Basirou waaw waaw ordi dem na ñu xool ordi jël na ko saa daw na wër ordi nga koy jël waaw waaw jël na ko saa bañ waaw waaw ma xool nu koy def takk na ko eh ordi ordi génn nañ saako yi wala déet moom heure rajo taxaw na final. ñu xool Sayer dem na final. ki koy bëree moo di ki nga xam mooy Sayer Dame ak Sélémélé. demi finale baa nga noonu. fils de Badli. finale plus de cent vingt Mamadou Moustapha Sall ak Libidor ndeysaan Libidor moo ngemboo ngemb lu weex li ceinture rouge fils de Batlen Siki Mamadou Moustapha Sall moo ngemboo ngemb lu Lagos bi ceinture ñu ngi ci compétition bi plus de cent vingt kilos ñoom ñaara ngi noonu daw na jëli ko Libidor jël na ko fàqatante nañ da koo bëgg a jëli dóor na ko tànk Mamadou Moustapha Sall Libidor fàqat na ko da koy jël wala déet génnaat nañ laay laay lallaa dinañ bëre ndax final daan dem final la demi final bi du yomb ndaysaan du yomb ñoom ñaar ndaysaan Libidor jël na tànk mu ngi koy mbot da koy daan da koy daan trois appuis jël da koy daan moytul Mamadou Moustapha Sall moytul da koy suruxal wër na ndomba da koy daan daan na ko dem na final Libidor daan na ko Libidor daan na Libidor daan na. Libidor daa mel ni xol sedd na. waaw bàyyi ji waaw xol seddagul na daal. bala moo sedd mu jëlafee daal. xel kon xel bu daanaka bu daanaka waa dalagul. parce que bala moo dal dëgg nu jël li nu sas daal daanu nu sas. waaw na ma booy confirmer rek ma booy confirmer ma eggale. Ah. billaay walaay caaxaan daanu ma de. waaw baax na. waaw Libidor a ngi noonu.